asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi man la seen mbokk Abdou Samad Touré borom baax tey jii nag dañoo dikk fii ci As-Samadiyya TV fa yéene fi amal émission bu mag boo xam ne mu ngi tudd Murit gi parce que yéene ànd ak Serigne Moustapha Saliou Diouf kon Serigne Moustapha Saliou dikkal leeral bokk yi lan mooy seen émission Murit gi. kon bokki taalibe yi yéen a ko déggandoo ni ko Serigne Abdou Samad Touré waxee. ñu war a juddulu fii ci As-Samadiyya émission bu tudd murit gi war koo ànd ak bokki taalibe yu yaatu yu fasantikoo di waroomi xam-xam yoo xam ni bu nu ñëwee danan leeral li tax émission bi jug li ko tax a jug nag mooy lépp lu bokkul ci yoon wi tan tabal ko ci ñu génne ko lépp lu ci bokk fu mu mën a nekk ñu indi ko ngir xam ngir xamle ni ci la bokk ndax ku ne xam na sëriñ bi ni mu taxawale yoon wi keno yi mu ko encadré ñëpp xam nañ ko te léeg-léeg nga gis lu ci dugg lu ci bokkul wala luñ ci génne lu ci bokk loolee nag danoo taxawal émission fii ci As-Samadiyya ngir défendre loolu génn ci lépp lu bokkul ci yoon wi ak dugal ci lépp lu bokk ci yoon wi. maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ko déggandoo comme ni ko Serigne Abdou Samad Touré borom baax waxee ak Serigne Moustapha Saliou Diouf. ci seen émission bu mag bi nga xam ne ñoo ngi ko fas yéene présenté fii ci As-Samadiyya TV muy émission bu bees boo xam ne nag moo ngi tudd murit gi murit gi nag lenn rek moo ko tax a jóg mooy wéy ci njàngaleem Serigne Touba. lépp loo xam ne bokk na ci yoonu murit te ñu bokk cee génne tam dëppoo ak njàngaleem sëriñ bi ñu indiwaat ko lépp li nga xam ne dab na yoon wi te bokk ci muy ay xew-xew yu bees yoo xam ne bokkul ci yoonu murit ñu génne ko si ànd ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne seen xam-xam murit yëpp rafetlu nañ ko waaye àdduna bi yëpp rafetlu nañ ko ci ay thème ak ci ay invité bépp thème bu nu àgg daal des na ci indi ay boroomi xam yoo xam ne seen xam méngoo na ak thème bi ñu indi tey ci murit gi murit gi nag mi ngi am chaque àllarba maanaam mercredi à partir de 15 heures jàpp 16 heures 30 muy 3 heures ci bëccëg jàpp ñeenti waxtu ak genn wàll ci ngoon fii ci As-Samadiyya TV bu ko kenn wuutu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waa koy bokki julli di bokki taalibe yi yéen a ko déggandoo ne ko Serigne Moustapha Saliou Diouf leerale ak Serigne Cheikh Ndam Sayfu la muy seen émission bu tedd bii di murit gi bokk yi bu ko kenn wuute mi ngi am àllarba 3 heures ba 4 heures et demi incha allah bokk yi bu ko kenn wuute.